xam ne am na ko ci assemblée nationale ki ñuy introduire yaakaar naa xam ngeen ko mu di le député Guy Marius Sagna mbokk yi jërëjëf maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci seen tur ak seen sant li ma bëgg a tey nag ñu wax du Guy Marius Sagna li ma bëgg a tey ñu wax mooy Sidi Lamine Niass Lamine Niass Sidi Sidi Sidi Sidi Sidi Sidi Sidi ngeen jëf tey ñu ñu war a tudd fii tey mooy Sidi Lamine ñas yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla xare aljana yàlla na saraxam yàgg ci loxo ñi nga xam ne ñoo fi nekk Sidi Lamine ñas moo fi jiwoon lii nga xam ne moom lañuy ñuy woowee groupe Walfadjri ñu ko koy sante di ko ko gërëmee ba tey ñu jàppoon ne bu suñu baay ak suñu maam Sidi Lamine Niass génnee àddina groupe Walfadjri day daal di nërmelu ñu gis ne ginnaaw Sidi Lamine Niass bu mu fi jógewee ci la groupe Walfadjri gën a am doole gën a dëgër ndaxte Walfadjri moomelu askanu Sénégal la Walfadjri mooy la voix des sans voix Walfadjri mooy baatu ñi nga xam ne amuñu baat Walfadjri mooy baatu ñu ñuy sàcc seen suuf ba pare naan leen du ngeen ko fi waxee Walfajri mooy baatu liggéeykat yi ñuy noot naan leen du ngeen ko fi waxee wal Walfajri mooy baatu policier yi ñuy fay quatre-vingt-dix mille francs par mois te mënuñu ko wax fenn Walfajri mooy baatu nappkat yi nga xam ne ñoom lañu sàcc seen géej te amuñu fuñ koy waxee Walfajri mooy baatu marchand ambulant yi nga xam ne bés bu nekk rawatina samedi fii lañuy fees dell di daw di daw di daw ngir sutural seen waa kër moo tax wal fajri ñun ñoo ko war a aar wal fajri ñun ñoo ko war a sàmm wal fajri du ñoom lañu tooñ ñun askanu Sénégal lañu tooñ ndaxte li ma li ma waxoon bi ma ñëwee fii seet si waa wal fajri laay waxaat fii mooy groupe de presse day am ligne éditoriale groupe de presse day am gis-gis mu koy mandargaal mu koy wutale ak yeneen groupe de presse dama ne ni ñu war a respecter ligne éditoriale TFM noonu la ñu war a respecter ligne éditoriale bu groupe Walf ni ñuy respecter ligne éditoriale bu RTS bi nga xam ne nekkalu fi askan wi noonu la ñu war a respecter le groupe éditorial de groupe Walf bi nga xam ne mu ngi fi nekkal askan wi li am mooy lii ñuy def Ousmane Sonko naan tout sof Ousmane Sonko loolu la ñuy def groupe Walf naan leen tout sauf groupe Walf te duñ ko nangu duñ ko seetaan ndaxte groupe Walf mooy groupe bu askan wi. groupe Walf mooy la voix des sans voix moo tax nag fu ñu groupe Walf woowee ñun dañoo war a taxaw moo tax ñu bàyyi suñu lépp ñëw fii fi may daanelee nag mooy groupe Walf waa APR dañ ko fay ne leen ñun dañoo am manifestation ngeen couvrir ko groupe Walf couvrir ko waa Pastef fay groupe Walf ne leen dañoo am manifestation Mbàkke couvrir leen ko groupe Walf ne comme fay ngeen ñu dinañ ko couvrir kon groupe Walf deful loo xam ne dëppoowul ak yoon ni mu couvriree manifestation APR noonu la couvriree manifestation bi nga xam ne moom mooy bosu Pastef li am mooy dafa am la guerre de l'information dafa am la guerre de l'information ñu bëgg seen rajo ak seen télé yi nga xam ne ñoo leen di waxal une presse de connivence une presse soumise une presse bi nga xam ne c'est la presse du palais et de Macky Sall Walfadjri ne ñoo bañ ñoo lànk on ne sera pas une presse de connivence on ne sera pas une presse soumise on ne sera pas une presse du palais on sera une presse du peuple sénégalais jërë ngeen jëf Walfadjri dama ne 29 février ñun ñoo war a dajale xaalis buy fay payooru liggéeykatu Walfadjri dañoo bëgg a asphyxier financièrement Walfadjri ngir 29 février Walfadjri du am xaalis bu muy fayee liggéeykat yi ngir ñoom ñu mettre des travailleurs père mère soutien de famille au chômage ñun waruñu ko seetaan de nañu dajale suñu téeméer.